tout le monde s'est ça veut que yéen ñëpp da ngeen toog di xaar Macky Sall mais toogu leen di xaar Macky Sall ou bien vous voulez que je vous décrive loolu loolu nag loolu may mën a. Ah. loolu man mënuma ko rafetlu. ah boo ko rafetlu woon mu surprendre non xaaral rek mënuma ko rafetlu. parce que président Macky Sall lu mu ñu ji lu mu ji ku nekk si ñun ku nekk si ñun lu mu ko ji lu mu ji Sénégal tey. tey ba nga xam ne lu mu bitim réew yeneen naataangoom ñoo ko ne yooyaay de rester la voix de l'Afrique mu nekk ak ñun pendant douze ans fu ormal ñu jàppale ñu ànd ak ñun pour ñu liggéey Sénégal pendant douze ans mu laaj ñu lenn rek mooy ñu jox ko lenn lu tuuti mooy baatoom ñu jox ko suñu baat pour pour mu continuer liggéey bi ñun ñëpp ñun ànd ñu continuer liggéey bi loolu nit yi mun ñu ko jox te loolu man nag ngor suñu ngor amul si ñoom koo xam ne ngorom war na ko ko mën a may moo tax man ma ne tey ñuy jóg di wax candidat lañu sa ñoom sa man euh, dam leen di appeler à la raison parce que suñu ngor ñun waa benn Bokk Yaakaar waruñu ko may pour plusieurs raisons tey fii Maïmouna kenn nekkul candidat à l'élection présidentielle ñii yëpp ñoo moom fi wax yëpp kenn nekku si candidat à l'élection présidentielle laa la wax est-ce que comprendre nga lu ma wax. waaw c'est les candidats ñoom yëpp dañu bëgg a nekk candidat de Benno Bokk Yaakaar à l'élection présidentielle. kan moom moo fi ñëw mu ne la da ngay dégg rek je suis candidat à l'élection présidentielle suñ ma tànnee euh, suñ ma tànnulee je ne veux pas du ma euh, du noonu lay bàyyee kii mu ne je vais apprécier non monsieur déedéet non monsieur je vais apprécier des non monsieur non monsieur non non monsieur c'est pas comme ça non mais je suis désolé monsieur c'est pas comme ça yéen da ngeen nekk da ngeen waxu leen da ngeen nekk candidat soo leen soo leen seen bopp ngeen am courage da ngeen di génn da ngeen di génn ngeen ne ngeen ne wax ak sénégalais yi ngeen da ngeen di dem balaa boobu da ngeen di da ngeen ne ah man de ah président Macky Sall man de xam naa ne am naa projet am naa euh, loo xam ne yéen naa ko dam koy dem présenter sénégalais yi loolu ñëpp lay ñëpp lay naw mais Idrissa bokk loon si benn bokk yaakaar. dafa démissionné dem. non bokk bokkul si benn bokk bokkuloon. Ah, bokk na mu génn dem yoonam mais la lañ ko def dañ ko ñaanal président Macky Sall daf ko ñaanal. mais ñoom yëpp ñu toog fii yëpp ñuy wax candidat ak candidat ñoom ñoo jël ñoom ñoo nekk dañuy def charte dañuy def code de de ñun yëpp ñun yëpp a ko nangu ñoom yëpp nangu ko ñi nekk ci état bi nekk ak président Macky Sall ñu ñëw ñu ne ñun dañuy dañu bëgg nekk yéene nekk candidat de Benno Bokk Yaakaar à l'élection présidentielle. mais Mame Boye nee na moom il n'a pas. Euh, amul charte bu mu bu bu mu euh, moom joxewul kàddu parce que fekkewul secretariat exécutif. bañ ko waxee lool dëgg lu ma la wax loolu. mu ne kenn signéwul benn charte waaw dëgg lu ma dëgg lu ma wax loolu du jarul charte pour ñu signé ko suñu coalition bi dafa am doxalin dafa am ay kuréel yu koy yu koy yu koy yu koy euh, ëmb. yu koy yu koy jiite kuréel yooyu foofu yëpp muy conférence des leaders ku nekk si parti am lépp def nañ ko moom mi ngi si parti APR donc kuréel bi lu fa nekk ça l'engage si ça l'engage pas day génn démissionné ne ah président man de dem na ko donc tant que defu ko ba pare fu ñuy woo ñi pour waxtaan wala pour dem mi ngi fa donc je considère que amul kenn si ñoom ku nekk candidat à l' élection présidentielle ñoom yëpp dañu ne. dañu nekk dañu nekk xaaral kenn signéwul charte ma la jarul charte loolu ñu ngi si coalition ñi ñu ngi si parti y' a des règles de coalition kii soo jéem ñoo xam ne ñëpp ils sont tenus de le respecter ah ma ne ñu noonu moom moo ne mi ngi si ñi ngi si Benno Bokk Yaakaar ils veulent être candidat de benn Bokk Yaakaar soo bëggee nekk candidat nag Benno Bokk Yaakaar mooy da ngay nekk candidat d'un groupe d'un groupe ñëpp nekk fa ay leader rek nekk fa toog ñu ne ñun mag président Macky Sall la xaar mu tànn yow tam soo ormalee soo wormalee président Macky nga wormal nga sa naataangoo yu nekk si biir ñu nekk leader nga xam ne ëppalewu la leen dara ñu toog ne tekk di déglu président Macky Sall ne tekk di seet nit yi di di di euh, tooñ président Macky di ko muñ parce que président Macky Sall moo ñu ne tey nii ah ëpp na ñuy tasaaroo ëpp na ni ñi dem dañu war a def lépp ba nga xam ne sa ñu réer sa ñu def lépp ba ñu ñëwaat si biir en coalition bi parce que l'enjeu c'est pas seulement le de rester au pouvoir l'enjeu c'est de concrétiser la vision d'un Sénégal émergent d'un Sénégal qui que le président est en train de rentrer dans la modernité dans plusieurs secteurs qui sont illustratifs euh, dans plus, plusieurs domaines ce Sénégal-là et les enjeux sécuritaires de de de la sous-région exigent de nous qui sommes à côté du président de la République un minimum de discipline un minimum de loyauté et donc loolu moo tax euh, man rafet lu may mun a euh, doxalin euh, ñeneen yoo xamante ni ñi ngi nekk si biir di ñëw fii di jël télé yi jël rajo yi di dem di wax ak militant responsable jàmbur mais c'est même pas élégant même may mun a mais mais mais yow. c'est même pas élégant da nga ne. c'est même pas élégant danga jàpp ne c'est inélégant ñi taxaw déclarer seen candidature dégluwuñu Macky sàll dañoo war a tekki seen ndombal tànk déggoo lu ma la wax de lu ma la wax ñoom ñëpp déedéet may mën a lu ma lu ma la wax dafa leer dama ne man may mën a su ma doon candidat à l'élection présidentielle waxuma la candidat de Benno Bokk Yaakaar à l'élection présidentielle damay tekki sama ndomb tànk dem présenter projet Sénégal pour sénégalais sénégalais. mais est-ce que ce soir ñii non ñii dañuy dañu projet bi suñu projet commun la. c'est le plan c'est le c'est le c'est la vision du président Macky Sall un Sénégal de progrès un Sénégal pour tous et tous un Sén dans un état de droit euh, décliné dans le plan Sénégal émergent projet bi moomuñu ko suñu projet ñun yëpp la pour le Sénégal appareil politique bu koy kii président Macky Sall moo fa nekk président de la coalition. donc ñoom moom moom moomuñu projet moom moomuñu après ñun ñëpp suñu lépp ñu ñun ñëpp nangu ñu ne dinañu tànn ku ñuy jiit kuy ku ñuy jiital pour mu dem ñu présenter ko Sénégalais yi ñu continuer liggéey bi ah loolu de soo si waaw waree bokk war nga am màndu nga xam ni ñeneen ñu nekk si biir ëpp looloo leen dara. mais mais mais mais xam nga ñëpp dañu teg président daal war nga màndu pour pour bañ a dem si. Euh, dale di joxe ay conditions non monsieur y a pas de condition il y aura aucune condition amul du fi am condition man la président Macky Sall su tànnee kenn du du fi am condition. parce que attention waaw mais waaw mais képp kuy militant am nga droit aprè avoir accompagné Macky Sall pendant douze ans bu tànnee te tànnu la te nga am ambition soit nga plier wu en posant des conditions soit nga dem. da nga koy def avant doo ko def après de. c'est-à-dire. sooy si tu es te prends au sérieux mais man sa dama gis ni sa d'ailleurs ñoom ñu bëri ils se prennent pas au que man non parce que mënoo nekk si gouvernement par exemple je te man su ma nekkoon si su ma su ma su ma su ma doon candidat yi à la candidature de Benno Bokk Yaakaar sama chef de gouvernement nekk candidat du nekkaat sama chef de gouvernement si période boobu billahi du ko nekkaat. damay démissionné damay wan président de man lu ma jaral. du du nekkaat sama chef de gouvernement bu dee moom candidat la du ko nekkaat donc ñoom ils se prennent même pas au sérieux wala ma nekk directeur général le chef de gouvernement et le chef de l'administration muy nekk sama chef de bord du ma du ma nekkaat directeur général du ma nekkaat ministre. donc donc ma ne léegi nag. donc donc bu cas jarul jarul ñu si. la wax man dama la wax man. waaw d'accord mais du ma si wax keneen keneen lu ko cas de figure bi bu ñu ko toppee. à part Abdoulaye Daouda Diallo Mohamed Boun Abdallah Dionne ah euh, Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye Diao Abdoulaye Diouf Sarr ñii ñëpp dañoo war a démissionner. yow yaa ko wax de. parce que leur patron Amadou Ba eh, est-ce que man candidat à la candidature de Benno Bokk Yaakaar est dama ne man Doudou si je me prenais au sérieux balaa may dem présenter devant les Sénégalais. ma nekk ci benn gouvernement wala ma nekk si benn koo xam ne le chef de gouvernement aussi mu ne dafay candidat du nekkaat sama chef de gouvernement su ma koy présenter ci période de candidature boobu du nekkaat candidature à la candidature le candid le période candidat à la candidature du nekk sama chef de gouvernement. alors du nekk sama chef de de l'administration. du ko nekk